maar lay ngi noonu cey maar la ak anaconda lu mën a xew mooy marle bi jekk na de maar léegi noonu ñu koy seet xañ yaram ba ritax na wala ritaxul jëy lu ñoom ñaar ñu ngi noonu ci géew bi Anaconda Marley Marley Anaconda Marley Anaconda cey lii cey lamb ji जय जुर्ण जामबार भी या कारना ने जामबार प्रोडक्शन आमे थिन न्यु न लिगे भी रफत न रेन मुचिना आई या लन को ये गले जाम सलाम भाई साहब arbitre bi sifflé na Anaconda cokaas Marley combat bi gaaw Marley Anaconda Marley Anaconda Anaconda jëli na tànk ba jëli na ko Marley da koy ko daan na ko laay laa ilaha illallah Marley nee na naa bëre Marley bul bàyyi ndaanaan nga ci làmb bul bàyyi bul bàyyi Marley ndaanaan nga champion nga ci làmb oh Anaconda daan na Marley daa daw xeex bi daw jëli ko yegg ko fu sori daan ko jël bu amul benn werante ay waa ji la Anaconda li nga def kër Marley metti na daan rakk daan mag daan mag rakk daan mag oh Anaconda yaak Eumeu Sène li ngeen def ci kër ga rëy na Eumeu Sène dem na kër ñoom Balla Gaye daan Sa Thiès daan Balla dem ko ñoom daan réparé daan ndeysaan marle la Anaconda